école ubbee ba léegi mënuñu jàng normal da ngay ñëw jàng si lundi ñu ne la suba mardi débrayage mercredi total léegi semaine prochaine ñu lancé waat beneen plan d'action. ñun fii élèves yi lu ñuy dund dafa métti premièrement transport ndax gis nañ léegi fu waay wàcc cent franc beneen bi ci topp ñun suñu gouvernement bi dañoo yàq système bi ba nga xam ne da jàng am diplôme ba pare mais doo am niveau léegi lu ñu bëgg continuer du ñu coloniser. ah continuer du ñu manipuler nga xamante ni dañuy xiifal alors que seen doom mu ngi à l'extérieur li ñu bëgg mooy jàng bii ñu ngi ñaan yàlla réussir ko buñ ko réussir dinañ lancer plan B te plan B bu dikkee mooy gën a métti yaakaar naa. bi école tijjee ba tey defuñu devoir wala devoir yi ñu jot a def mënuñu cee jot. en plus prof yi parfois da ñëw ba école ñu ne la defuñu cours maanaam programme bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk classe de terminale xaajala guñ sax et que 3 mois moo ñu dese donc jot na ñun ñu xeex parce que dañoo bëgg a jàng normalement les cours ne se font plus correctement ñëw ba egg am na ci yoo xamante ni yu bari yoo xamante ne ni découragé wu lañ parce que lan da ngay paas da ngay paas ñëw ba fii ñu naan la tey defuñu cours wala dañoo am débrayage nangam ak naan on banalise pas leur acte parce que ñoom ñoo ngi seen droit léegi nag jot na ñun élèves lan moo ci suñ droit pour ñu xeex pour jot suñ àq loolu moo nekkoon suñ taxawaay donc ñun dañuy am yaakaar def suñ xel ne incha allahu rabbi ñu defee mars bii nii suñ jàngoro yi ñuy xeex dina saafara avant tout loolu lañ def suñ bopp te ñoo ñaan incha allah benn marche du fi amaat ñoo ngi sàkku ci nguur gi ngir yàlla mu dugal loxoom parce que benn réew mënta avancer sans développement fas yéene nañu yokk suñ loxo lii nii première kese la incha allah rabi buñ gisaatul yeneen yoo xamante ne ni am nañ saafara